kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi

donc ma vais profiter euh, di remercier féliciter. et puis di ñaanal encourager. télé bi jëm fu sore donc de présenter wu Cheikh Le bu Gissé, Guissé membre fondateur du groupe. bon officiellement on dit toujours 95 mhm. parce que 1995 la ñu génnee aux femmes. Euh, mais joué jouais plusieurs années avant plusieurs années avant joué nañ ko uh-huh. ba 95 l'album « génnee albumu Fama bi ñu dem ba En jamono 98 uh-huh. ñu Siré l'album. ci albumu

ila shomar kando wale madina owale panjakara seykumar fote utara karana boo nee Fuuta tudd képp ku sant Taal képp ku uh-huh. sant Si sant Gise évidemment uh-huh. euh, tudd képp koo xam ne diine

nek ko uh-huh. simple tout ce qui est simple ak positivité. Uh-huh. rester humble et positif. Uh-huh. liguey sa liguey xamné comme liguey dox li ngay dox dox jam wax fa am. ci euh, positif ci Cheikh donc ba musique bi ko sax def arme c'est pour dénoncer yenn mbir yi. si alors si sa simplicité boobu noonu simplicité boobu ngay wax ak humble bi la ñu daal di dugg di la laajte lan mooy sa parcours bu nga nekkee xale carrière boobu nga amoon li nga doon def daal. bu ñu nekkee xale xam nga comme comme tout jeune. Mhm. da ngay judd ba am 6 ans tu vas à l'école. si nga jàng jàng ba benn instant c'est pareil si jàng lañ lay xiir. Mhm. donc euh, mais boo amee benn brin de euh, artistique bu nekk ci yow c'est pas évident que. nga continuer njàng meek yooyu. si mais sunu parents yi dañoo insister. Uh-huh. xam nga ak suma uh-huh. frère Djibi. Uh-huh. dem na ba terminal. Euh, suma beneen frère Aliou dem na ba euh, beneen classe je ne plus. man ma nekk ci classe yi dem ba dépassé sixième. Euh, am na chance parce que dem naa au moins ba ba ba quatrième quoi. tu vois au moins. mais njàng mi nekk fii parents yi def insister. parce que bëgguñu woon ñu musique mhm. comme beaucoup de musiciens parce que si jamono yooyu musiciens yu bari pareil, yu bari dañuy gis ay musiciens yoo xam ne dañuy dérivé moo tax bu seen doom ni day def musique ñu xaru ne du ci dal mhm. mais ñun teel a prouver suñuy parents mhm. que musique bi dañ ko def pour métier du woon pour caaxaan. du woon pour kii du woon pour dugg ci ay euh, yu yu ma bëggul tudd ak yooyu. Uh-huh. mais dañ ko def parce que métier la. Uh-huh. te mën nañ ci réussir. Uh-huh. te dinañ la prouver que mën nañ ci réussir. donc su ma déggee ci say cadre da ngeen doon accumuler li nga xam ne moo di musique bi ak études yi. yi ba benn instant après musique bi primé. donc kay mën naa ne fan ngeen bàyyee seen li nga xam ne moo di. dem naa ba quatrième jibi dem na am na jibi Momatani am na. ba mbay waay nga koy waxee quatrième. <laughs> pare xam nga on a la chance. Mhm. parce que njàng mu njëkk bi. Mhm. moo gënoon baax euh, njàng mu tey. waaw dëgg la booy nekk tey. Mhm. bëgguma tudd foofu. dëgg la da nga leen di tegal caméra. Mhm. ñaari phrase yu jub mënuñu ko def. dëgg la c'est vrai. tu vois mhm. donc ñun suñu njàng à l'époque on avait beaucoup plus de chance. si beaucoup plus d'ouverture mhm. de de très bons profs d'instituteurs ak yooyu. un encadrement vraiment meilleur tu vois on l'avait ba nga xam classe bu ñu on avait une euh, ouverture d'esprit boo xam ne moo fi ci jamono yi beneen niveau la. la donc musique aussi. Je pense qu'il faut une tête intelligente. Moi, comme si. Donc, euh, les tournées, les échanges, les rencontres, c'est comme si tu étais toujours à l'école. Mm-hmm. Donc, quand tu es anglais, par exemple, les gens qui sont tout anglais, j'ai à l'école. C'est pendant les tournées. On a fait des pays yo xamné anglais fait mm-hmm. On a fait plusieurs pays yo xamné kenn dafa la France anglais. Euh, en Allemagne en Angleterre en Hollande aux États-Unis foofu laa que perfectionné anglais. Uh-huh. ouverture d'esprit écoute. Uh-huh. communication. Uh-huh. alors donc on année nga ci li nga surtout. Ah mais le, par contre parce que nous man par exemple à l'âge de 16 ans. on artiste Youssou Ndour ndessane bu faatu uh-huh. commémoration. Uh-huh. C'est un danseur de Youssou Ndour je pense que en 86 ou 87 donc ko concert. Euh, uh-huh. à Demba Diop. man si a scène presque 20 000 personnes. Euh, stade mais on a fait aussi euh, commémoration au centre culturel français fa démarrer de dëggantaan parce que euh, fof la ñu jëkk jéngoo jël ay guitare man ak Djibi ñuy joué en acoustique ñun ñun deux kese quoi. Mhm. gars yi naan yeneen musiciens yi non, noonu ñun deux kese la ñu. <laughs> alors foofu laa téye sax sama sama kàddu bu nga ne c' était la première fois ba nga dem fële ca stade Iba Mar Diop euh, Demba Guissé autant pour moi voilà Demba Diop pour nga def li nga xam ne sa première scène alors ba nga nekkee première scène lan moo nekkoon say première émotion lan nga euh, doon yéeg kii la fougue, de jeunesse. Quoi. Tu as envie de monter sur scène, tu as envie de prouver, tu as envie de, de, de vivre tes rêves. Demba, euh, les frères du Cher, Djibi. <laughs> Tu vois, mhm. non, nous quoi, Cher, Djibi, Adu. Mhm. Mais bon, les musiciens nous ont accompagnement on était mhm. avec d'autres musiciens. Mais qui là ben xam nga nga bëgg dara xalé xalé nga bëgg ben affaire bëgg ko bëgg ko top sa papa ko jënd lay jënd ba jour lu xey ni compte ba nga am c'est pareil mhm. donc on était dans la musique di ñafé di def ay répétition ñu xey bis xam nga ku toll ni euh, staff Youssou Ndour woñu né ne dañ leen soxla pour euh, mémorial Alla sec mhm. ñu def ko mu sétan concert ci biir orchestre yu joué yëpp mhm. mu simpiwaat ñu moom Youssou Ndour son premier 25 décembre yooyu mu doon organisé. xam nga yow su ma la koy wax da am repère parce que yàgg na si yàgg j'étais gamin. <laughs> Youssou Ndour il il a fait pendant plusieurs jeunes. Mhm. plusieurs années. Mhm. chaque 25 décembre mu def ko stade Demba Diop. stade Fess Dell. Mhm. donc bi mu njëkk a def man la ji bi ñoo def première partie. donc euh, loolu yëpp c'était des c'est des moments de rêve qui se réalisent. D'accord. Alors, une tournée que vous dans le monde marqué. ak la ci tamit. waaw tournée yi mhm. mais euh, man euh, na dëkk tournée mais est si euh, mhm. Moi, xam nga gouvernement dëkk simple envoyé la presque mission suis une francophonie bu Vietnam en 97. Nous mhm. Sénégal bi Sénégal ñun lañ ci pour ñu dem représenter Sénégal au mhm. Vietnam. Mhm. ci francophonie. une deuxième fois les 70 ans de l'anniversaire de Aimé Césaire en Martinique. si. Hmm, ministère yaa le français <laughs> Aimé Césaire le si. Euh, anniversaire c'est 70 ans nous sommes animé. Euh, à la Martinique. gars yi envoyé ñu avion tout ça. Uh-huh. li ngay gis ci film yi. Uh-huh. parce qu'on était en France di uh-huh. enregistrer suñu album. gars yi nañu il faut ngeen dem mënuñu woon arrêter producteur de mer ñu ne non producteur yi may leen ñu parce que suñu état quand même moo nous woo pour ñu dem représenter ko. loolu moom bu ngeen ñu même bu des da de di contre contrat bi fii. ñun dinañu dem. gars na ok ñu baisser les armes ñun ñu dem animer loolu vraiment en 72 heures. si dem aéroport Charles de Gaulle jël avion atterrir fële ñu ànd yoonu avion bu daw ñu jël ko dem atterrir jouer le lendemain ñu jëlaat avion dès le soir, nous ñoo toog mel ni du woon mhm. donc ça c'est des moments aussi c'est euh, c'est des moments de gloire quoi. Mhm. si les 70 ans d'anniversaire, toujours aussi dañ ciy cité pour Pape Cheikh Hamidou Kane. écrivain sénégalais bu ñu ràññee ci àdduna bi yëpp. Mhm. moo bind l'aventure en bind. Euh, euh, deuxième livre bi bim koy bind euh, koy euh, lancé ñun ñoko mhm. animé au niveau du centre culturel mhm. français et cetera mhm. donc paa aussi bi famille bi koy fêter 70 ans ñun lañu wo machallah ñu ñaan yalla 90 ans fekk fi pour ñu wat ko ni ko doon fowé noonu ci 70 ans machallah mu fekk ñu fi ñu wat ñu animé wat ko donc ça c'est c'est voilà c'est quelque chose si voilà tu vois alors cher yene c'est motivation yi fan ngeen koy jëlee

moo lay may ngay xalaat ngay xalaatee neneen di gisee neneen. ñu mhm. ñeneen ñi dul gisee. dem ba gisee. gisee neneen. waaw moo lay moo lay may xalaat boobu yàlla jagleel la moo lay may ngay gisee nu ñeneen dul gisee. daa lay làkk wolof wolof xóot nga ma làkk kay. <laughs> da toog ak nit. muy ngeen bokk xalaat ngeen bokk di xalaat. Uh-huh. mais li ngay gis moom du ko gis. du ko gis yàlla moo ñu ko jagleel. Uh-huh. mu nekk aussi ce que nous vivons. c'est facile euh, way dara lu dul li ngay dund. li ngay dund si. li ngay dund euh, li sa morom di dund. li waa koñ bi du dund li ngay dégg ci coow li ngay dégg ci kii loolu la. en quelque sorte porteur de voix. nga jël ko porteur de voix quoi. tu parles à la place des gens yo xamné ils ont envie de donner. si. tu vois. Mm -hmm. de partager leur. Mm -hmm. leur bonheur. fi nga wax ko à leur place. si am ñuy bëgg wax vraiment lu leen metti mm-hmm. nga wax ko ñu naan nga déglu ko ñu ne diw de dafa mel ni dañ ko nettali sama histoire. si par exemple histoire Fama wala Siré. Mhm. chaque jour que jëfee nga gis ko ñëw ne histoire bi mën nga ko woyal. si noonu la demee quoi. ça veut dire que on lit dans la tête des gens dans la dans les pensées. donc Siré amul benn inspiration bu ko dafa ñëw noonu rek nga bindee ko woy ko. dafa ñëw dafa ñëw noonu je l'ai écrit gis naa koo xam ne plusieurs fois ñëw na di ñaan jabar ñu ne duñ la ko may parce que lii ak lii ak lii ak lii ba leneen am ci mhm. loolu mooy indi siré dëgg la donc ñu bari nag dañuy tooñ naan man maa ko vivre quoi mais je l'ai pas vu message à lancer la des fois derrière moi, am na ay message à lancer mais ils disent que c'est tellement bien conçu que dafa mel ni que lu muy lu muy dund la quoi mais non mhm. c'est pas je l'ai pas vécu mais gis naa ko ko dund quoi d'accord alors cher gis nañ tam sa yenn son yi mën naa ne en pulaar la lan moo tax loolu bah, nous sommes des poulains. Ouais. <laughs> Ah, c'est normal, mais quand même, polar, mais bonne nuit. Donc, euh, nous sommes des poulains. Mhm. Nous sommes nés à Dakar, mhm. à Yara. Mhm. Donc, euh, nous sommes chez les Halpolars, nous sommes un judo djeri. Nous sommes judo ou le Dakar, quoi. Si. La plupart, nous sommes Mais nous, on a eu la chance avec nos parents. ñu insister. Uh-huh. pour ñu làkk tukulóor. ok donc sunu papa yeeg sunu yaay dañu doon wax bu ngeen nekkee ci biit ak seen xare lu ñu leen neex wax leen. mais bu uh-huh. ngeen nekkee fii ci biir kër gi làkk leen fi tukulóor. loolu mooy tax ñu naan tukulóor dafa raciste. dëgg la mais en réalité c' est pour que doomam dégg. Uh-huh. làkk bi. ñun bi ñu nekkee xale sax daaw ñu comprendre des fois ñuy ñu décoller ci paa yooyu ne non papa bàyyi la ngeen dox ñun suñu xarit ay wolof lañu mais ñu màggee bay wolof. am ñaari langue ñu comprendre si la ñuy soo comprendre ñom démarche. si donc non la démé quoi. Mhm. léegi nag euh, dañuy wax nak mais way nañ lu bari aussi en wolof hein. si on chante en Poulard, mais on chante beaucoup en wolof. on est on est au milieu parce que nous sommes nés à Dakar entourés de wolof. Mhm. ñu am chance de la tukulër. Mhm. de la wolof. de temps en temps sax ñu tatane benen lac bo xamné du suñu si mais ñu dem jang paroles yi. jibi am na benn morceau boo xam ne mère Maaw Kuyaate moo ko doon woy mooy famille Sissoko Sissoko bi dafa déplacé wu dem ba foofu toog yor bi ak feuille bi mel ne mère bi sa woy bii la bëgg a reprendre ni neex na de Kalu mano sayama nyinde mon cœur, mon frère, mais mon frère, oui. il ma yee sa yaa ma ñinde mhm. tu vois. wu dem toog mais bi di ko wax parole par parole muy bind. Mhm. macha allah dañ koy def euh, ak morceau joola. Mhm. dañ koy def ak morceau séeréer. mais làkk yi ñuy dégg pulaar bi ak wolof. soo ñu doon dikkalaat ci li nga xam ne moo di seen son yi ngeen jot a def wala featuring yi ci ñaata lay toll à peu près. Bon, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de collaborations à l'étranger. Mm Fini au Sénégal, invité nous invité Mais ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus euh, des collaborations mhm. euh, dans le monde. Mm euh, Hollande, on a fait un album, un album avec un groupe de jazz, de Fouta. un mhm. album avec une femme qui a boo invité woon ko Sénégal buy def mhm. folk comme ñun ñu tuddee ko Nina en Slovénie def nañ fa benn collaboration ak benn gars bu tudd Vlado Vlado Kreslin uh-huh. album carrément acoustique affaire yu mel noonu quoi uh-huh. on fait beaucoup de collaboration uh-huh. mais fii au Sénégal j'avoue que invité nañ ñu ci benn woy wala ñu invité kenn ci benn woy ak yooyu bëriwul featuring quoi si Cheikh gis nañu tam gis ni toog ngeen lu yàgg génne woon leen li nga xam ne moo di son wala album lan moo tax loolu pourquoi pause boobu bon pause bi euh,

def ko en partie mbalax ba ñu koy wajé génné du yomb été bi kon du yomb dé du yomb de <laughs> naa la <laughs> ah, envoyé son bi nga dugal ko ci affaire n'est-ce pas. <laughs> Mhm. donc euh, am na yu ñu enregistré. Mhm. mais li ñuy li ñuy tourné di dem bitim rew mo, mo gëna bari. tu vois ba nga xam ne bu ñu ñëwee on joue dans les hôtels xam ñu ngi fii hôtel Azalaï. Mhm. demain on joue au Radisson. Euh, la dernière fois on a joué au terrou de temps en temps ay nit woo ay dîner de gala et mm-hmm. animation cocktail déjeuner à si dañ koy def euh, et puis voilà bu taxawé euh il y a deux trois mois ci avons mm-hmm. invité ci commune bu de Cessin mm-hmm. Sessin mu à 10km de Grenoble commune bi dañu invité pour nous ñëw animer commémoration les 26 ans de l'abolition de l'esclavage ok tu vois. les 26 ans de l'abolition de l'esclavage mhm. donc euh, ay affaires humaines mel nous, euh, à l'étranger euh, un peu partout dans le monde mais toujours secret bi nag mhm. mooy dellu Sénégal mhm. lu ñu def nous si noppee dañuy dellu Sénégal ñoo musique bi c'est connu partout dans le monde voilà donc on court dans tous les sens mais nous dellu toujours Sénégal mooy suñu repère mooy suñu. Mhm. voilà alors Cheikh euh, ban façon musique ngeen nekk di def. musique bi ñuy def musique acoustique Le gars yi gën a xam quoi. Mhm. tey ci may wax ak yow nii. Mhm. on joue à deux mën a jibi kese. ok waaw am na moment yoo xam ne. on a besoin de mettre la kora. on joue avec Baka Sissoko. muy frère ñoom Kunda, frère ñoom Babalaye. Sissoko et tout ça dañuy jouer ak moom ba ñuy jouer le kora.

ngeen bëgg ah sopp ko oui oui oui non ñun on a beaucoup xam ñun nag euh, am na affaire bu ñu waxtaanewul mooy fu ñu jàngee musique waaw am na benn musique boo xam ne moo gën a dëgër mhm. mooy déglu mhm. on a écouté beaucoup beaucoup de musique on a beaucoup écouté des des musiques du monde mhm. mais si au Sénégal am na kenn koo xam ne inspiré on, ñu inspiré woon kon euh, dundatul nekkatu fi muy Seydina Issa Wade Mam, c'est une djengu musique acoustique Mais c'est pas évident. Mhm. parce que acoustique bi euh, musique d'écoute la. plupart nit la musique de danse la de donc mom, il fait partie des premiers Il a jël benn guitare moom kenn cundum mu ñëw RTS jàkkaarloog Maguette de jouer Il ne ko def mu musique acoustique yow et cetera et cetera. Mhm. donc il fait partie de ces pionniers on a beaucoup écouté notre frère Ismaël Lowe. on a beaucoup écouté notre grand frère aussi Baba Mal c'est des gens qui ont ñom ñoo ñu mag. Euh, on les a beaucoup écoutés. Mhm. on a beaucoup écouté les Touré Kunda. Mhm. tu vois. Mhm. donc c'était les les les meilleures musiques à l'époque. et puis des musiques étrangères des musiques qui nous venaient de partout. d'accord Tu nak war ngeen ci maison de production. ñun de maison de production. <laughs> Euh, au Sénégal par exemple. nous autoproduction une def. autoproduction pour ñu produire nous euh, ñu contacté à l'époque dañu mhm. don wax musique bi ngeen def neexna lool mhm. mais du musique bo xamné day yëngatu si au Sénégal donc ñu wëlbatiku dem produire suñu bopp mhm. tu vois mais à l'étranger on a beaucoup de on a beaucoup de, de cellules yo xamné c'est des gens qui nous représentent à l'étranger au Canada aux États-Unis en France mëna ci citer Assane qui est euh, Production, il vit à Paris. Uh-huh. C'est un gars qui fait tourner en m'appelle qui fait tourner Sekoba Babino, qui nous fait tourner et d'autres musiciens. Uh-huh. Donc euh, au Canada, tu vas un peu partout, aux États-Unis. Uh-huh. Dans les nous sommes libres, nous calons les d'accord daf ko dellu si waat à part euh, li nga xam ne moo di musique bi Cheikh ci lan nga yënguwaat boobu dama koy naan dama koy waaye mais mun nga ñu wax rek tuuti rek <laughs> ay mots clés rek nga ñuy may <laughs> ay mots clés rek nga ñuy may Cheikh xam leen xam leen sunu musique xam leen uh-huh. sunu musique après li ci des uh-huh. yàlla baax na léegi mun nga ñu wax fii ak cinq ans lan moo nekk seen projet wala yow sa projet ah bon fii ak cinq ans bon bon euh, musicien nag moom xam même boo dee boo dee da ngay bàyyi wala dara mënoo bàyyi uh-huh. parce que ci ci direct la nekk quoi mais toujours <laughs> humble et positif Les <laughs> li nga li fii ak cinq ans yàlla moo xam luy ñëw quoi <laughs> mais pour le moment ñu ngi ci musique bi moi, mooy métier bi nga xam ne moom la ñuy exercer si ñuy donc pour le moment ñu ngi si donc les projets nag moom du c'est des albums c'est des tournées c'est des collaborations tu vois c'est des enregistrements des productions à yooyu la et puis l'union. ñëw

benn gaynde boo xam ne uh-huh. dafa bëggoon frère Guissé uh-huh. ba ba fu bëgg yëpp nekkoon di liggéey ci bureau di liggéey euh, il travaille dans je sais plus mais nekkoon nit ku baax bëgg ñu lépp lu muy def comme comme gis nga Baye Fall lu muy def ak nitam daal lépp lu ñu soxla dawal jëli mbir uh-huh. réparer li defar li defar li lépp la doon bàyyi te pourtant patron la mais bu ñëwee jël karawaat bi sànni ko si ginnaaw du ñu defal lépp lépp lépp lépp ay année 97 la ñam ben concert bu mag boo xam ñun dañoo demoon tourner mhm. pendant pendant 2 mois 3 mois. Mhm. ñu dem tourner mais ñu programmé ben concert bu mag centre culturel français. presque moom mo dox concert bi yëpp benn xaritam bu tudd Karimba suñu ben grand bu tuddu Omar Fall. Mhm. ñom ñoo dox presque concert bi ba mu jeex tak ñun ñu ngi tournée. ñu ñibbisi 5 euh, juin le 7 juin nek concert ñu jouer ba concert bi jeex ba ñu ranger bagage yi bay ranger mu am attaque. moom attaque cardiaque tu vois. ah c'est triste quand même. yow sax maa la gën de ah mais cardiaque quand même voilà tu vois donc Djibril Fédior toujours dafa mënul c'était en 97. mënul jóge si sunuy xalaat. mënul mhm. jóge si suñuy ñaan. Mhm. donc ñu ngi koy ñaanal kii mais c'était c'était un moment boo xam ne am na une semaine boo xam voilà. bopp bi sax dafa. day dem si si donc c'était fou. parce que mais c' est des choses qui arrivent. dalay bett mbiru yàlla buy ñëw dalay bett. donc mënoo ci dara. ci saa si da ngay xaru. Mhm. nan qu'est-ce a di saalit di wax lu nekk. mais boo toogee toogee seul face au mur. ci ti di mbiru yàlla uh-huh. nii la ko bëggee nii la ko dogalee mënoo ci dara uh-huh. li des rek mooy yàlla yërëm fee mu tëdd donc ñu koy ñaanal uh-huh. yàlla yërëm ko xare àjjana amin amin amin alors Cheikh gis nañ nag li nga xam ne moo di milieu showbiz bi dafa dangereux mën naa ne alors yow en tant que ancien mën na yan conseil ngay jox ñi nga xam ne moo di jeune talent yi ñoo xam ne ñoo ngi soog bëgg nañ mel ni kii nga xam ne moo di Cheikh Tidiane Guissé lan nga leen di wax man mes deux mots clés sama papa moo ma ko jàngaloon mooy li ma la wax depuis tout

bu la nit gisee ngay def lii loo xam ne bu buñ la bettee nga koy def mu rus nga rus uh-huh. bu ko def et cetera et cetera ça veut dire que jub xoj si li ngay def yàlla suturaal ñu mën nañ ko tudd parce que tey dafa yàq dëkk bi uh-huh. mosuñu naan uh-huh. mosuñu tux du yamba du lii du lii tox cigarette foowantu nañ ko quelques années bàyyi man 2001 la bàyyi tox cigarette mais du sàngara te chaque jour ma gis ko j'ai fait

alors yaakaar naa ne Cheikh Tidiane gis ne wax na leen lépp nag chers amis internautes nag lii laa leen andi loon fii balaa may tëj nag damay bàyyi ki nga xam ne ne mooy suñu ndaanaan bi ñu dalal tey fii ci hôtel azalay mu daal di tàggatoo alors Cheikh tu as la parole la tàggatoo ñaanal ñëpp jàmm ak ñi ngànk réew ñu ngi ko jël depuis trois mois ñi ñu ngi wax cent jours ñi ñu ngi cent dix jours ñu ngi fii mais ñu ngi déroulé je pense que il faut au moins un an pour que nit ñi xam à peu près mais coow li bëri na lool lool lool nañu wàññi coow li te liggéey donc dam leen di ba euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye uh-huh. Ousmane Sonko ak seeni ñooñ

maa ngi koy remercier moom it bu baax a baax ndax su ko neexoon moom bañ invitation bi mais dafa ko maa ngi remercier ki nga xam ne tamit Omar Camara sama cameraman bi maa ngi remercier tamit yéen ñii suñu ami internet yi ñuy seetaan saay su nekk diñu safoo ba tax na nag maa ngi leen di jox dig daje samedi bi di ñëw incha allah ak yeneen invité jërëjëf ya silola iye kamben kabo dum munya bolodi